ndax gis-gis la boo xam ne tëgguñu ko ci benn weer wala ci benn at wala ci juróomi at réew lu koy soppi lu ñuy liggéey la teg ko ci xam-xam teg ko ci méthode teg ko ci application teg ko ci rigueur ci ay at yi at moo tax boo xoolee juróomi at yi njëkk yi redressement lañ ko tuddee ndax boo fekkee kër goo xam ne fondation yi nërmeelu na nga ñëw ole nga defaraat fondation yi nga ñëw rek teg ay briques boo moytul doo gaaw am brique doo gaaw am kër moo tax redressement phase boobu dafa di phase bu am solo loolu noonu nag dañu xam ni bu dee téeméer juróom-ñett fukk yi primature moo ko war a doxal moo ko war a doxal j'insiste pour que chacun fii ci ñi fi nekk xam lan mooy suñu responsabilité responsabilité bu rëy a rëy la kon ci ndaje bi mënuma woon ñàkk insister ci yi nga xam ni man farata la ci man yooyu mooy njëkk a nekk farata ci man may dalal seen xel nag nii gannaaw bi ma delloo euh, gërëmaat son excellence le président Bassirou Diomaye fay ci kóolute bi mu am ci ñun ba jox ñu primature waaye kóolute bi mu am ci ñun ba jël lengay nañu lii laay xaar ci yéen bañ na ba daf ma ne décret bi war a organiser primature maa ngi koy xaar xoolal noo ko bëgg a doxale ba ñuy def décret de partition service daf ma ne seetal lan nga bëgg ci ay services yoo xam ne war naa indispensable ci primature nga wax ma ni lii ak léegi lii laa bëgg ma ne ko man service civique bi rek laa bëgg ak bos yooyu bu ñëwee rek par rapport ak fi ñu bëgg a jëm mbir mi presque mat na kon di ko gërëm ci confiance boobu ak ci cër bi mu ñu jox su ma ko joxee man jox na ko waa primature yëpp ndax président bu dooleel premier ministre am dafa dooleel primature bi yëpp di ko ci gërëm moo tax may dalal xel ñi fi nekk ñëpp xam naa ne seen xel ñàkkuta dal sax waaye di di wax Sénégal yëpp nii ñooñu di balli balli di tëbëki dal ndax xam nañ ni mbir mi jeex na ba tax ñu ne dañuy def course contre la montée dañuy daaneel gouvernement du ñu daaneel lu toll ni tarfata ayin motion de censure ci boppam moo dul am fii Sénégal loolu ma wax ko te teg ko fu leer te ci tey balaa bés bi di jeex di ngeen gis li tax ma wax ko am na ñoo xam ne dañoo jàpp ni àdduna yëpp politique la te bu ñu gisee fi ñu jaar ak ñoom bay si fii war nañoo xam ni ñoom mënuñu politique ndax suñ ko mënoon lii di om noonu nag lañu ñu fas yéene continuer ak ñoom. te noonu lañu ñu fas yéene doxalee ci li jëm ci aar alalu réew mi ci bépp fànn delloo si alalu réew mi ndax ñi nërmel réew mi gasal ko kàmb gu dul jeex jël ay milliards yi dugal seen poos lii ñu génn ci réew mi te xam nañ fi ñu ko jaarale ñoom ñëpp nag ma wax leen ko bis ki tey suñu tekk tekkaaral bi boobu ba léegi wax naa ko ñaari yoon wala ñetti yoon du woon faiblesse dañoo bëggoon li ñuy liggéey ñu teg ko ci méthode ba dossier bu ñu yëkkati rek laam-laame du am waaye comme gis nañ ni ñoo ngi commencé di daw am na déjà ñeent wala juróom yu génn ñaa ngi Dubaï ñu ngi kanadaa moo tax ñu jël ay mesures conservatoire ndax ku ci dem du dellu si ndax xam nañ li def ñoom ba tey jii ñu mën a toog ci réew mi xaar seen wàll ci war a ñëw jàkkaarlook Euh, yoon pour layoo ko te du am benn dossier bu ñuy monte nag dossier yu leer nañu lay doon loolu nag waratul am ci réew mi su ma koy wax fii dama bëgg a joxe exemple niñ ko bañee ci ñoom ñooñu ak li ñu def noonu lañ koy bañee ci ci suñu euh, régime kenn ku nekk ci yéen li mu am bëri na tuuti na li mooy wër wërsëgam na ko sante yàlla te kën a kon continue di góor góorlu xam ni yàlla waxul kenn dara ni ko xale yi di waxee nit commencé na ci cinquante mille francs mujjee ci ay millions lépp te te jaayul ngoram jëlul lu moomut loolu dafa am solo continuer di liggéey yem ci li nga moom bañ a dugg ci loo xam ne moom loo ko te kenn ku ne ci yéen dafa am obligation loolu tam ma wax ko tey agent bu xa bu gisoon premier ministre muy def lu lul yoon wala mu jël lu mu warul jël yoon la farata la mu dem dénoncé ko loolu ay texte la yu nekk ci suñu loi nekk ci suñu cadre communautaire obligation la parce que fonctionnaire yu bari dañuy gis tul yoon mais dañ naan sama yoon newu ci waruma wax